Cheikh Abdoulaye Lahad Cheikh Abdoulaye Lahad Cheikh wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi amaan nañ mbégte ci toogaat ci jataay bi nga xam ne jataayu fàttaliku la waaye jataayub sant yàlla la waaye jataayub ñaan la jataay bii nga xam ne moom lañ toogee ci kër jàmbaari lislaam ja di sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké boroom ku dem ma dem ku demul ma dem kane woon li feeg mu fiy nekk sëriñ Touba rek la fiy nekkal kookee nag bisam moo dëkk malaat war a doon ajjuma ñeenti fan ci weeru juin dëppoo ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru korite wi di bis ba nga xam ne ba mu xewee ca njaareem sëriñ Touba Xaadim Rasul moo ko njëkk wooteel boppam wax na gana ngi xam ne ñëw na jamono képp ku ko lebal teraanga su maggee dana la fay waaye man ah, Cheikh Ahmadou Bamba boo ëllëgee danaa la fay bis boobee ba mu delsee mbedd njaareem yëpp dañ koo taal di jàng alxuraan di jàng ay xasida di def ay bernde di santale le Serigne yàlla ci ganam gi nga xam ne moom la ko yàlla jox bis boobu nag moo dëkk malaat moo tax ñu toog fii ci jataay bi ci kaw ndigalul sii di Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér te am ngërëmul Serigne Touba ci lim koy xeel waaye nag mu jëlee ndigal di magam di Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké borom pësteef bi borom yitte ji mu xam ne ne bis boobu nag nañ ko waajal nañ koy waajale ak nañ koy defee nag loolu mu ngi ci kàddu yi rakkam yi nga xam ne ñoo toog di Serigne Mahmoudan feggoo ak Serigne Amsatou mu Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne Abdoul Ahad Ka ak Serigne Abdoul Ahad Diop ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy daayira turandoo Cheikh Abdoul Ahad yi ak soppe yi ñu bàyyee kàddu gi sëriñ Mahmoudan mu ubbi jataay bi su noppee sëriñ Amsatu tëj ko su ko defee ñu xamal leen nañuy waajale bis ba ak na sëriñ bi bëgg ñu ñëwee ko ca ak na sëriñ bi bëgg ñu defee ko ni ca murit nag lépp lu mu def ca teg ko ci ndigal dana ci am yiwu yàlla kon ñu maa déglu sëriñ Mahmoudan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci kilifteefu Cheikh Mouhamadul Mountakha ak ci ndigalul sëriñ Sidi Mbacké mi xalifatu Cheikh Abdoul Ahad moo waral nu daje fii tey ci ndigalul sëñ Sidi ngir jot li kàddu yi nga xam ni ci bis bii ñuy dëgmal muy bisu Cheikh Abdou bi noonu la sëñ bi bëgg ñu doxale ko ni gannaaw bu nu nuyoo ñëpp siyaar leen sëriñ baa ngi nuyu bokk yëpp di fedd li bokk gi ak bëllëri bi di xamal ñëpp ni màggal gi nañ ko defe daaw noonu lañ koy defe ren sëriñ bi joxe leen digal li kenn ku nekk barab ba nga nekk nga dundal fa bis bi ci jàng alxuraan ak berne lépp nag ñu delloo ko ci def ko addee Cheikh Abdoul Ahad ak bokkam yam fa fekk yépp loolu la ko sëriñ noonu la ko sëriñ bi santaane kenn ku nekk fa nga toog nga màggale ko fa ci pastif bu dee ab daayira la boo xam ne bii dañ koo sosoon ngir Cheikh Abdoul Ahad wala ñu wala ñeneen ñoo xam ne dañoo dajaloon ngir def bisub seex Abdoul Ahad bu fekkee dañoo war a ñëw ci kër gi nañ ko defoon daaw rek lay demee dara du soppeeku nañu nañu bañ a indi mbooloo mu bari sàkk ñetti nit wala ñaar ñu dikk indi seen pastéefub liggéey noonu la ko sëñ bi santaane bëgg ñu defe ko noonu bernde yi yaatu ak jàngum alxuraan mi noonu la sëñ bi wax ne nañ ko ne defee la ca des nag sëñ am sa dana ko gën a detaaye ci ak leeral waaye li sëriñ bi bëgg daal ñu def ko mooy nan de daaw rek nan nan ko màggale ren sëriñ baa ngi ñaan nag ci barkeb sëriñ Tuubaa ak Cheikh Abdoul bi nga xam ne moo ko fi nekkal euh, lépp lépp lu nit yëngoo ci màggalu Cheikh Abdoul Ahad gi wala ci taxawaay wala ci pas yàlla defal li nga bëgg àddina ak àllaaxira kon nag nañ ko defee ni ko sëriñ bi santaane ndax jëf ju mën a doon rek bu tegoo ci ndigal rek lan cee lan cee sàkku lépp danañ ci danañ ci teg teg suñu loxo te nii la ko sëriñ bi santaane jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di jiite ci nuyoo bi nag sunu kilifa bopp di Cheikh Mamadou Mountakha. ak sunu kilifa nun ñëpp di kilifa kër gi di sëriñ Sidi Abdoul Ahad ñuy wax nag ci turam di yëkkati kàddu yi gàtt rek jëmale ko ci sof ko ci sëñ Mahamad na waxoon léegi ci bis bi nga xam ni mooy jublu si di bisu Cheikh Abdoul Ahad di bis bi mu gënee te sëñ Touba jëkkoon koo berneel joxewoon taalib yëpp ndigal ñu berneel ko ñu koy taxawal nag ba li xew ci jamono ji tax ñu soppat nañ ko daan defee waaye berneel yi nag ñoo bëgg a xam ne dara du ci ko njàngum xasitam ñu xam ne dara ci soppi njàngum alxuraan yi ñu xam ne dara ci soppi ndax sëñ Abdou Lahad kat dafa def ci alxuraan loo xam ne bëriwul ñu ko def ndax ña ko daan bind leen daan teral te da ko daan jàng fa mu toll ba wutal ko daara kaamil fii muy daara alxuraan kon koy bendel alxuraan war na caa ji bokk war na caa jiitu xasitam mu liggéey ci loo xam ne itam gisu bëgguma ko ko liggéey ndax moo day la sëñ Tuubaa xasitam yëpp wutal ko kër fii dajale fa lépp ay junni junni mool ci ay junni junni ndànk alal yu bari def ko ci ngir eh, seexul xadim kon su bisam ñëwee xasida war na caa bare teraanga nag moom ci moom la fekk baax ci la yam ndax daa yàkkal yoon sëñ Tuubaa wi ci teraanga ndax islam boo ko jees si ta noppee yàkkali ba ko jees noppee rek teraanga ko te moom eh, daana wax ne sax yii muy def mu niroog yàq ngir ñu xeem yoon yi moo tax kon teraanga jooju nag bu ñëwee bisam war nañ caa jëf suñ kemtalaay kàttan ñu ñaan nag fépp taalibe bi nekk ci réew mi ak bitim réew loo mën ci tra fa nga nekk nga def ko fa fii itam nga xam ne këri sëñ këri sëñ Abdou nga xam dañuy dañ seenu njaboot dañu fay nekk ñu fay berndeel nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy maqar bi mooy sees bi dawa dawaayet yëpp ñu dajale seen addiya indil ko sëriñ bi kenn ku ne la nga war def sa kilifa nga nga def kër kilifa nga def ko fa waaye nag fa nga nekk itam nga def alxuraan def xasida ndax fii lañ ko wootee ndax woote bu ñuy wootee bu ne Touba ci ëpp solo sëñ bi waxul ñëpp ñëw waaye nag kenn kenn ku ne fa nga ne man ngaa def teraanga mën ngaa jàng xasida man ngaa ñaan kon ñu ngi koy sant taalib yëpp leen ko fàttali den ci leen ko digal tamit sëñ laa daal bisam na teraanga ja doy na xasida ja doy na alxuraan ja doy ku ko def ku ne da nga daje ak bëggam ndax lim fi nekk ak ba jóge fi lépp alxuraan xasida ak sëñ Tuubaa rek ak bëggam ak dimbal nit nag ndimbal la loo xam ne ku ci def ku ne wala nga wax ci wala nga jëf loo ko jagal sa mbir àdduna dana jag sa mbir àdduna sa mbir àllaaxira jag mën naa ko waat ci barke Sëñ kon nag ñu ngi ñaan eh, fu dib taalibe nekk nga ñaanal sëriñ Sidi ñaanal njaboot yëpp ñu dëppoo am seen ngërëmul waajur saa saa borom defal leen gudd fan defal leen wér defal ko taalibe sëñ Tuubaa yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf mbokki jullit yi jërëjëf itam mbokki taalibe yi ñoo jot a déggandoo ndigal li bàyyi ko ci sëriñ Sidi moom Cheikh Abdou Lahad Mbacké di jëwriñu kër Cheikh Abdou Lahad jaar ci rakkam yi ñu déggandoo kàddu yooyu di bis bi nga xam ne moom la ñuy waajal ñeenti fan ci weeru juin dëppoo ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru korite di bis bi Cheikh Abdoul Ahad Mbacke jàmbaar islam ja feeñoon jamono ci njaareem Serigne Touba waxoon ca waxam ju rëy ja ne nag gan gi am naa ci yaakaar waaye ku ma ko teralal ku ne dootoo tàngoog teraanga yi àdduna ak joj alaxira Serigne Amsatou lim na teraanga yi alquran moo ci jiite fu daaray alquran mën a ne Serigne baa ngi lay soññ ci njàngum alquran mi ñu daal di koy tàmbali na mu gën a gaawe te a bari rek gënal sa sëriñ bi ñu def ko addiyee Cheikh Abdoul Ahad ak mboolem mbokkam yam nekkal fam nekk waaye ñu dool dolli njàngum xasida mi foo xam ne kuréelub xasida nee na fa sëriñ bi nee na nañ tàmbalee jàng xasida yi te di ko def addiyee Cheikh Abdoul Ahad ak bokkam yam fa nekk waaye bernde nag su ñëwee loo am da nga ko cay yemale ndax sëñ Abdoul Ahad sëñ Touba moo waxoon ne ku ma ci lebal teraanga danaa la ko fay borom dana la ko fay kon bis baa ngi noonu foo ab daayira mën a ne di daayirab Cheikh Abdoul Ahad wala daayirab soppe wala daayirab sëriñ Touba te bëgg a barkeelu ci bisub Cheikh Abdoul Ahad bi sëriñ Sidi tëjut ay buntam waaye kuy ñëw bu mu ëpp ñaari nit kenn ku ci nekk boo ñëwee da ngeen la ba àgg ci sëriñ bi nga jébal ko sab liggéey njàngum alxuraan mi njàngum xasida mi yi bernde yi yaatalaat gan ñi sëriñ baa ngi soññe ñëpp nag bis bi ñeenti fan lay doon ci weeru juin di amee fii ci Touba waaye dëppoo ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kor wi ñoo ngi ñaan képp ko xam ne yëngu nga ci bis boobu wala muy wax baa wala lu mu mën a doon yàlla nga ci dajeeg wa hablahum maaraamu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi na booloo xam ne yaa ci fi woon nuy sa traburaate ñaan di déglu ndigal sunu xol yi sedd na sunu xel dal te yaa ko waral